waaw gars yi gars yi dama leen a bëgg rek mottalil benn affaire rek boo xamante ni damaa bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel gis nga Babacar Diaspora dernière vidéo bu mu defoon mu ne moom waxagul xam nga lu tax parce que ay nit dañ koo woo conseil ko même bu doon man sax dama koy def conseil ko ne ko sancel état loolu lañ ko wax sancel état ndax mën nan laa mën nan laa dëkkal foo xam ne nii dëkkoo fa wala ñu fexel comme ni ñu def Amina xam nga Amina dafa ñëwoon mu ne Tange moo sàcc ay seenu ooram loolu da cee xuloo moo gét ba léegi nii nii Amina du wax ak ñoom moo gét loolu lañ ko bàyyee léegi loolu la ñuy bañ nag mu dal Babacar Diaspora spora, ñu conseil ke ko sans sel état parce que Babacar Diaspora limu xam ci sen dossier dafa beuri commencement ba ba fin Babacar Diaspora ma nga fa lolo tax mo waral changement état boobu ba pare Babacar Diaspora ben munta am keur amerique parce que dekul amerique mom visa la yor munu fa liggéey sax mo géet moko fa indi muy def ay mission nek ci mom yaangi deg nek ci ay mission bu deme bu problème am amna. mais ban na koo sans état ci la yëkkatee téléphone am woo Girif comme que Girif moo nekk at Atlanta mu woo ko wax ko ne ko dañ ne ko sans état pour mu mën ko lijjanti foo xam ne nii mooy loolu pour mu mën a lijjanti ay business am comme bu doon man rek ma war a dem Dakar damay woo tig ne ko maa ngi ñëw Dakar nii ak nii ak nii noonu la demee mais Girif darman ko mooy naa féq bari def conférence bi Babacar nekku ci woon Babacar beneen téléphone la doon wootee beneen téléphone mais Grif moo ko def noonu pour ñu enregistrer ko avant muy jël appel bi lim ñu wax mooy Babacar Diaspora mooy woote day ànd ak moo gétt te amul fu mu dëkk taxaw leen ma def ko ma def ko viva maanaam ma def ko laaw express ngir dégg li muy wax lépp kon kooku Grif Darmanko moo ko bëgg a taqal bëgg koo sosal mais Babacar waxul ne moom amul fu mu dëkk dana ko sensé état moo waral mu woo Grif bu woon état boobu ñu ne ko sensé ko sax Grif du ko dégg kon Griff Darmanko fenkat la naafiq la coow li coow li yëpp damaa bëgg ngeen xam ne Griff la merci beaucoup gars